salaamaaleykum cher internaute univers info tv di leen euh, ziar bu baax baax di leen jox seen wàcc waay tey nag ñu ngi Pikine euh, fekki sunu xarit sunu sunu mag sunu confrère sunu concert sax laay wax plutôt muy ndaak nekkoon artiste comédien yàlla def mu daal di euh, ñàkk bakkanam tey nag ñu ngi fii këram fa yéene def ay témoignage ci li nga xam ne moo di famille maman noo def moom tamit mu daal def li nga xam ne moo di ay témoignage ci nga xam ne moo di maam ana yan kàddu rek ngay wax ki nga xam ne mooy sa rakk tey Ah, sama mag la sa mag uh-huh. waaw maam daag maa topp ci moom macha mu nekk mag ju baax mag ju yaatu mag ju am sutura uh-huh. mag ju wàcce boppam uh-huh. maam daag ñu bari dañuy foon ni man maa ko mag parce que moom mag maa topp ci moom tellement oyofam dafa tax daal maam daag daal baax lañ ko xamee yaatu uuf ñëpp bëgg ñëpp ñëpp wàcce boppam samay waa kër kenn du ko sax woowee turam ay madre piis ak lu ne lañu koy wax mu wàcce boppam macha allah macha allah mam daak daal ñuy gërëmit di ñaanalaat suñu mag ji ko téye ndax man dëkkuma fi mais sama mag bii chaque jour mu bàyyi këram ñëw nekk fi ak moom waaw ak sama rakk jee ñoo fi nekk ak moom man nekkuma fi woon ak moom dama daan dem di ñëw rek ak ku góor suñu càmmiñ bi waaw ñoo ko doon jàpp te loolu it nga feebar say mbokk taxawula day na sant yàlla mm-hmm. ma waxaat ko encore une fois. Mhm. nit du ñàkk di ñànki. dëgg la maam nag ba muy ñëw. Mhm. yàlla tàgguwul suñuy waajur. bis bu ko soxlaa di ko jël da koy jël ñuy sant yàlla nag bi mu ko jëlee ci anam bu rafet. sant yàlla bi mu ko jëlee ci weeru koor. waaw dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla lafal cat fa mu jóge ko bés gis bésu maam bii xam ngeen ni maam ndaak nit ku baax la xam ngeen ni maam nit ku jaraññee la mhm. maam ndaak dañuy ñaan yàlla yàlla bu ko cat jiitu man de maay rakk maa ci moom. macha te xam naa suturaam baaxam wàcce boppam. li ko xale suñu doom yi di wax ñeme muñ koo wax kenn te moo wàcc ba dañ koy ñaanal yàlla fee mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jug yàlla na coonoom yem ci àdduna waaw te am na taxaw suñu mag ji taxawu na ko sama rakk ji taxawu na ko sama càmmiñ bi taxawu na ko waaw mosuñoo woowi kenn ci àll ba ni ko nangam yàlla na ko maam daal yàlla moo defar léppam ñu siy jiital ak remercier waat encore sama mag ji ak sama rakk ji nga xam ñoo fi nekk man damay dem ak a ñëw loolu daal laa amoon te li ñuy li ñuy wax nañ ko bàyyi yàlla bis dee la njëkk a bind mhm. ka dund kon bu yàlla jëlee bakkanam bu ci kenn wax benn bakkaar waaw bu ci keneen wax beneen rumeur ñun daal foofu la ñuy yem waaw sama mag la dudd na nekk ak ñun yaru baax wàcce boppam ba yàlla jël ko ñun ñi ñàkk ñëpp ñàkk mais dañ koy ñaanal waa loolu kese la yàlla moo ñëw loolu kese la ñun dañuy waaw loolu daal sama mag sama mag bu jigéen dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal deux ans wam biñ koy ñaanal deux ans wam fa lañ ma woowe jour bi may dem Euh, la veille man si laa ñëw fii bi ma ñëwee fii encore. Mhm. wax ak moom wax ak moom wax ak moom ndeysaan dem ci fi laa dogoo ba dem. ci ëllëg sama xëy sama yaram dee si la ma sama mag ji ni ma dee du dara ba niñ ma woowee ni ma maam daa gaañ le 13 de sama bi gaañu mooy le 13 bi maam dese décédé. dañ ko doon ñaanal deuxième année liñ fa togg yëpp fii lañ ko ni woon si saraxu maam daag lay ñëw duñ ko gëm. Mhm. waaye nag moo neex yàlla ñun ay jullit lañu. Mhm. ay jullit lañu ay jullit lañu maam taaliba Cheikh àqal la sëñ Babacar lu bëgg moom la gëm dañuy ñaan yàlla yal na ko teeru si àjjanay firdawsi ni mu bokkeek suñu mag jigéen di benn dat yal na leen yàlla boole ci keppaaru Seydina Muhammad waaw ñun ñu ñàkk ba pare di am leneen lu ñuy wax yàlla moo ko tudd bu ko neexoon maay dem bu ko neexoon keneen ay dem mm. lii moo neex yàlla waaw bu wax bi euh, euh, dëngee ci man la bu jubee it si yàlla suñ borom la waa macha na ma jox sama rakk bi waaw joxo rakkam bi rek mu daal comme ni ko sa mag waxee rek ci témoignage yi ana lan ngay wax ki nga xam ne moo di Mame Ndak sa rakk di fi jóge li nga xam ne moo di euh, jikko yu nga xam ne yu rafet yi nga xam ci moom mu nekkoon tamit euh, nit koo xam daan na bégal askan bi tey boo ñu wax ci moom lan nga ñuy wax ci ki nga xam ne moo di Mame Ndak comme ñi fi jaar rek li ñu wax laay wax maam Ndak maa moom ñoo nekk ci kër gi ñun ñaari jigéen rek ñi ci des suñuy mag lañ mais kenn dukkul ci kër gi maa moom ñoo denn ndéeg Mame Ndak baax yaatu am jàmm am sutura li ma naan li muy doon sutura doomu jàmm yal na ko yàlla sàngi ma laan sutura. ci barke Seydina am. du xaawi sutura kenn. du xaawi sutura kenn mësu ko def barke Mouhamed. man mm. taalibe Cheikh laa. maam daag baax na bëgg xale yi bëgg mbokk. Mm. bëgg jaamur xew sunu doomu nijaay bi ñu fa demee sax. xew mu mujj bi ñu fa am sax kenn ñëwul ñu ne maam daag manqué na fi du jëw. du dugg lu yoonam nekkul. bu amee lu ko métti doo ko xam day sàng nit malaanu sutura yal na ko yàlla suturaal ci barki weeru koor gi man mi dend ak moom ñun ñaar doom ñoo bokkoon kër ak sama rakk bu góor kese nekk fii su ma koy toog ba mu yàgg ni ko xànj di ko toog ni ko am sa xarit yi mu naa ma tey damay dem arc wala am nañu programme ba xànju laa ko doon barki Cheikhou Tidiane xale yi bëgg ko mu nekk ak nit ñi jàmm ak salaam musula def safaan musoo toog ñu ne maam daal def na lu loxo dar gémmin man maa ko gën a mën a seede man mi bokk ak moom benn kër ba dee ak moom benn ñun ñaari jigéen dong ñoo fi nekk donc ñii ñëpp nag suñuy mag ñuy mag ñu baax mag ñu baax ñoom ñëpp dañu sëy ñun ñaari kese ñoo fi di man maa wéet kenn wéetul man maa wéet man ak moom sama doom ñun dong ñoo fi doon nekk sama doom ji day xëy suba di ko fëgg tooñ naan ko kënd ko tur bu nekk lañ ko woyee lépp mu supporté warki Cheikhou Tidiane mustamer mhm. lépp lu waaye wax rek day wax lu mu xam moom feebaram sax nit yéex na koo yëg parce que nekkul nit koo xam ne am na jalti jalti day toog ma ne ko yow dangaa bëgg lu yomb man maay dem di la jëndal ndékki mu ne ma di nga am ñaanu grande sœur di ma tooñ ndékki kaay sax du fa dem lépp man maay dem di ko def te boobu feebaru deful dara moo tax bi mu feebaree bi mu gaañoo ku ko dégg. Hmm. da ngay xam ni ku ma ni yow dama laa mere gàmm ma ne ko li tax nga ne ma maam ndaak feebar. ma ni la maam ndaak nit di yëgle feebar te maam ndaak feebaram du ko xam bu doon nit koo xam tey day cambar cambari ci mbedd bi di def yëf yi ñàkk fayda bu tëddee nañ nit est-ce que ay diw moom de tey kenn gisu ko ci mbedd bi ñu doog a xam dafa tëdd ba ci délégué da kàcc bi keroog ba ñu ko wootee ni dafa gaañu ci la délégué da kàcc bi doog a xam ni dafa feebaroon mu ne ma dama la mere ma ne ko feebar kenn du ko yëgle dëgg la maandu maandu moom mooy deuxième turam mhm. day suturaal boppam suturaal jaam yaa bi tëddee feebar sama mag bi dafa tëj këram ñëw sonn ci moom ak sama rakk bu góor lu war ñu def ko fi. Mhm. ay mbokkam kenn amul ko fi ñëwul avant muy génn àdduna. Mhm. te teewul kenn xamul coonaam ba keroog muy génn àdduna. Mhm. doomu Adama Ndiaye ñëpp ku ñëw rek day forcé wax ji rek nga xam ni mënatul. mu ni mu doon suturaale boppam suturaal doomu aadama noon la ko yàlla suturaal ba kenn mënu laa wax lenn. Mm-hmm. loo xamante ni daal doy na waa suturaal boobu te ñëw yi génnewu ci lu ñaaw ba keroog muy génn biir biir mm-hmm. suuf. Mm-hmm. ñun ñun ñooy wax ñun ñii waxuma sax. dëkkandoo yi sax dinañ teeme jàmm mais man mi den doon bokk ak moom benn néeg. ñuy yeewandoo di fanaanoo bu ma xëyee fëgg ko. bu ma njëkkee yow fëgg ma bunt. di jullit di taalibe Cheikh. bëgg ay mbokkam day bëre xale yi di kaf ak ñoom. war ki sëriñ Babacar Si Maalik ma yaakaar mosumaa gis defa mu man daf ma muñal ñëpp lépp lu waay wax te lii amul barki yonent bi ci weeru koor la ñu nekk. Mhm. ñun du ñu taxa a fen. Mhm. ndax xamuñu tey la xamuñu ëllëg xam yàlla xamul suñu kàddu dina eggam déet. Mhm. pour ñu mën a dem fekk si ko kenn xamul lan la. looloo neex yàlla maam daal lii la fi nekke woon. du jëw. gis nga pied néegam ba heure añ mooy tax mu génn bu demul fenn. déedéet du toog ci mbedd mi. comme teg bang siis ñu suñu kër yarewuñu ko sax rawatina ak moom. macha allah ci gis. kenn du ko gis man maay génn. Hmm. man maay génn mais moom du génn ci ma duggul problème mu jàmbur xuloowu la xeexul nag mais ku ma gis kaf li bi wax rek. ku hmm. xuloo sax dina wax nii di kaf di leen feccal di defee fexe ba ñëpp nekk si jàmm. Hmm. kon kooku yal na ko yàlla sàngi malaalu suturam yal na dajeeg malaakam yërmande yal na xippee ci àddina yi kawe ci barke Cheikhu Tidiane mi ñu yaakaar. doon taalibe Cheikh. waaw doon deful daray ñàkk fayda mm. jàmme Moussa man mi dëkk ak moom maa leen ko mën a wax macha allah wallaahi lu ñuy wax rek am na lu ca des mm-hmm. njaboot bi nga xam ne moom la fi bàyyi tey jii nga dëkkoon ak moom ana yan kàddu bi nga koy bàyyi ak toppatoo bi nga xam ne moom nga la maam ndaak daal di dénk njabootam parce que si biir wax yaa ngi naan mm-hmm. yéen a dëkkoon yaa ko gën a xam waaw waaw mm-hmm. moom daal maa ngi ñaanal dëkkandoo yi biir kër gi mbokk yi sama mag bi nga xam ne dafa tëj këram boroom këram tam ñu ngi koy gërëm bu baax ku baax la mm-hmm. ndax nga am sa soxla mu tombe rawatina tax yokk weeru koor nga bàyyi gis nga kii sept heures du matin la fi ñëw wala six heures mm-hmm. ban heure lay ñibbi deux heures mm-hmm. maa ko doom jël si man maa ko gunge ba marché zeng ba fee mu dëkk te riidis ba maa ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp di gërëm mbokk yi dëkkandoo yi néegu nday néegu bàyyi ñëpp ñëpp ñëpp daal jàpp ji maa ngi ñaan ñiim fi bàyyi ñun ñëpp yàlla na ñuy yàlla may xolu muñ mm. waaw ñu yokk ñaan suñu borom ñor di suñuy fan ñor di suñuy ba ñu toog di ko ñaanal benn doomam bi ko fi yàlla may nag mm-hmm. yàlla na ko yàlla barkeelal yàlla na mm-hmm. ci yàlla teg loxo waaye nag yaayam dem na mm-hmm. mais mel na ni ay yaayam yaayam demul yaayam dem na ni mel ni yaayam dem parce que ñi taxawaay dañuy taxaw taxawaay yaay te boobu maam daak demagul mm. avant moo feebar ñun suñuy doom yëpp dañ leen a boole ñun kenn iñoo mais moom la ñu gënoon a yab mais doomam ji du jooy nday mukk ci këru àdduna mhm. xanaa yàlla jël te bu nu fa jëlee sax ñun yàlla ñaan yàlla tey ni ñu dundee ak suñu ak ni ñu dëkkandoo bëggee dëkkandoo yi sax bu xale bëggoon a dëng tey doomam ji dinañ ko dinañ ko jubbanti rawantinaa ak ñun waaw mhm. ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp yéen tam di leen ñaanal di leen gërëm yal na yàlla yàggal taxawaay bi ci barke Seydina Muhammad jërëjëf waaw merci beaucoup waaw jërëjëf waay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di delloo ci yaay. Mhm. Euh, daat nekkoon artiste comédien ñu gënoon ko xam ci écran yi ana tey lan ngay wax ci moom. ci ay témoignages. ana baax. Mhm. yaru bëgg ay mbokkam man maamam laa mais ku ma fonk la fonk na ñëpp fonk la ay waajuram fonk na ay rakkam ak magam. Mhm. fi mu jógee yàlla fi mu jëm yàlla fi mu jëm yàlla ko yàlla gënal fi mu jógee si bakka salaatul faatiha ku baax ngeen ma laaj wax dëgg yàlla mën na wax ci moom lu bare bay te du jeex maam daal ba gën a mbokkam yaatu na ku mu gis ba ko benn moom daal ñëpp ñëpp daal comme moom la ko def rek day foo di ree di kaf yàlla na ko yàlla taxaw yàlla la ko yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeelam si bakka salaatul faatiha Euh, tey bi mu fiy jógee feebar la bu nekkoon ci moom wala jagadi wala wala wala yàlla moo ñëw ak yàlla ñëw ak moo xam feebaru gàtt la mhm. yàlla ñëw ak mbiram rek loo faj-faj yaa feebaru deemu kenn mënu ko faj mhm. loo faj-faj day a yokk rek mhm. wante fexe na bisam jot rek mu dem ci aar bi tamit di bay waaram waaw di bay waaram daf ko jàng wala lu mu lu mu dond la doon ko da ko jàng rek bëgg ko lool nag di si bëggal ay waajuram ak ay mbokkam ñun ñi ku mu ci gis bëggal nañu dëgg yàlla ku baax la wax dëgg yàlla te yàlla. Mhm. Mhm. tey yan seede ngay def ci moom rek mu leen la lii mu ci maam Ndaak. maam Ndaak li ci moom. Mhm. li ma xam ci moom. bëgg na ay waajuram. bëgg na ay mbokkam képp ku takk moom bëgg na la. ku mu gis bokk moom la la def day ree rek di fa di ree. amul benn problème. dëgg yàlla laa xam ci moom baax na yàlla na te xaalisam di ko boole kenn nit wax dëgg yàlla lu mu am bokk ay mbokkam. te la sama mbokk gërëmee rek. kenn ku la gërëm dafa fekk ay mbokkam gërëm na pare. yàlla naka yàlla may àjjana ju kawe kawe kawe si barke salaatul faatiha eh, dëgg dem bi mu bàyyeekoo ci dëj bi mu nekkoon ak ay nawleen bi artiste comédien est-ce que bi loolu amee gis nga ci ay taxaw ci ñim nga xam moom la doon nekkoon. waaw waaw waaw ñoom ñëpp ñëw kenn manqué wul. ndeysaan ñëw nañu ñoom ñëpp danoo jooy jooy bi bëgg a dee kenn manqué wul wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñëw nañu. Mm. ma artu mu gis gis mosul gis rek si kii si gis naa ko dem mhm. góor na yàlla ñoom ñëpp ñëw noonu te ñëw ku ñëw ak sa sa ga ngay ñëwee mhm. ak gërëm lu baax ngay wax ci moom kenn mosu fi kenn ñoom ñu fi ñëw kenn ñëw fi bon ci moom seede bu baax lañ ko seedeel mhm. seede boobu yàlla na ko fekk fa mu nekk si kàttanu yàlla Euh, nekk na loo xam ne tamit métti na vraiment ñu gis ni tamit famille bi am na kilifteef ndax sànq bi ñuy wax def ni jox leen sunu maam kii mooy sunu mm-hmm. mag kii mooy sunu frère yar boobu tamit nekkoon na ci nga xam ne moo leen nekk na ci moom ñoom ñëpp dañ leen yar si alxuraan mm-hmm. ñoom dañ leen yar si diine macha allah bala si kenn waxantee kenn say kaajur nga yëkk waxanteel mm-hmm. ba jour ba mu dëddoo si guddi ga ma fi ñëwee dañ wax magam ji di jaw Mm-hmm. dañu war a denc bu ay teewal te mun déet ma dama am kilifa sama nijaay nga kees sama nijaay teew mm-hmm. dañu wàcc xam nu koy def sama bi jaam mm-hmm. ba dem njaam bi mu dem dem noonu la waxaat ñii dañoo am kilifa ku amul kilifa la amoo dara dëgg la ku amul kilifa amoo dara te ñoom dañ topp seen kilifa wala dañ seen bi ngeen ñëwee sànq ndax dafa ne bala ma leen doxante sama kilifa dañ dem jumaa c'est vrai xaalis a koy wax loolu mooy kilifa gi te fonk nañu seen kilifa xam nañu ñooy kan mhm. respecté na pour wax dëgg yàlla macha allah seen seen waa kër te ñoom fokk fokk ñu duñ fokk jëf mhm. lépp lu si ñoom rek dana koy wax ngeen dégg mhm. dëgg yàlla ana tey lan ngay wax ñi nga xam ne doon la leen bégal bëgg nañ ko ak famem la yan kàddu nga leen di bàyyal xanaa topp topp ci li ma bëggoon rek dina julli day woor wax lu ko raw di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla nag ba suuf sedd guy si kàttanu yàlla wanante yàlla may bi mu fi baax yàlla ba ngeen ñëw fii fii si takkam ngeen koy bëggal si kàttanu yàlla doom bi mu fi baax yàlla ko yàlla taxaw te ñu fi nekk daan ko taxaw si kàttanu yàlla yonent bi bàyyi nag ci loxo yu baax ci loxo yu wóor la leen bàyyi yàlla leen yàlla bëggal yéen ñëpp si kàttanu yàlla yéen yàlla sàmm leen sàmm bopp julli allahumma amiin salatul faatiha jërëjëf Mame maa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu xamal ni ko yow yaa nekk sœur ci ki nga xam ne moo di Mame Ndack nekkoon artiste comédien ana tey bu nga présenté wu pare ana tey lan ngay wax ci sa xam ne mooy sa rakk mam Ndack. maa ngi leen mhm. sant leen jox seen wàccuwaay. Mhm. waaw ñëw ngeen na fu ngeen war ñëw. Mhm. ndax man mi maak yaayam. ay doomi nday lañ. macha allah waaye bi seen yaay demee ba léegi. macha allah ñu ngi toog nekk benn. Mm-hmm. waa bëgg seen ay mbokk nag mm-hmm. waaw topp seeni seen ay tante topp seeni nijaay mm-hmm. demuñu fenn dikkuñu fenn liggéey lañuy def bu ñu paree ci li ñu liggéey ñëw ci seen biir famille toog fa ke mosu leen xam dara lu ñaaw xam nga média bi moom yaat na loolu mais ke mosu dégg maam maam ndaag ci dara te artiste la waaye bay na waaram nag ba dem ci lu rafet rek te yenn xëy na feebar bi moom yàlla moo ñëw rek waaye maam ndaag xajoon na fi waaye xajoon na fi torop ñi sax daf ñoo bett feebar bi mhm. feebar bi moom dafa ñëw rek yóbbu ko mhm. waaw xanaa mission ma jeex ci àdduna rek mhm. waaye wax dëgg yàlla dañ koy ñaana fa mu ne yàlla na ko fa yàlla xari àjjana yàlla na suuf oyof ci kawam am nañ ci yaakaar nag ndax fa mu fi mu ko defee moo moo yi ndax def ne ci fukki fanu yërmaana ji la ne waaw yàlla nañ ko ñaanal yàlla yàlla may ko àjjanay fi daw si léegi mu daan def ci kaw suuf Euh, mu nekkoon nit koo xam ne tey ji daan na bégal euh, askan wi. Mm-hmm. doon def artiste comédien eh, wax nga sànq wax bu am importance nga ni kenn mosu ko dégg ci affaire de média mm-hmm. dëgg la macha allah dund na ko ba ni mu fi jógee kenn mosu ko dégg ci mm-hmm. feebar bi rek la déggee ay genre wax que ni dafa demoon doon tourné mais bi mu doon tourné bi mu tourné dafa dafa dafa def benn genre jommi parce que ki mu àndaloon moom moo wàcc ci oto bi après bi mu wàcc ci oto bi ci la buddi benn garab ci la ko garab bi waxee loo mu doon buddee est-ce que ni ko nit ñi di commentaire noonu la demee <laughs> wax dëgg yàlla de ñun sax démb lañ ko fi dégg sax rumeur yooyu mhm. ñun démb lañ ko fi dégg mhm. mais fee bi ma ñëw naa seet si ko mais kii mosu fi wax sax lu mel noonu mhm. waaw bu ñu ñëwee daal dañoo xam ne dañ koy seet mu waxtaan ñu nag ci dal parce que nag boobu sonn boobu sonn sax Mm-hmm. ñu waxtaan ak ñun. Mm-hmm. ñu ñaanal ko ndax ñun ñooy ay ay taantaam. Mm-hmm. waaw mais daal rumeur boobu moom démb sax bi mu neewee ko yëg. macha allah mais kenn mosuñoo mosuñoo dégg du dégg loolu yëpp ay xam nga rek Sénégal mooy loolu. nit day tëdd feebar lu yàlla moo ñëw rek. billaahi dafa matal rek dem. macha allah dafa ne mission lañ fiy def ku matare da ngay dem. ñu ñaan yaa yàlla na yéex rek. waaw. mais tey bi mu bi mu nekkee ci diggu feebar bi est-ce que gisoon nga tey jii ñi nga xam moom la bokk noonu liggéey bi ñu koy seet si waaw am na ñu nañu fi daa ñëwee di koy seet mm-hmm. dëgg yàlla moom bàyyi ñu ko woon ñu ngi ko doon seet si macha allah waaw ndax man am na bis ma fi mujjee ñëw sax am na ay morooma ñoo xam ne xam naa lañ ci média fekk naa fekk nañ ma fii man mm-hmm. ñu koy seet si mm-hmm. waaw ana tey yan kàddu nga mujjee waxtaan ak moom bi nga xam ne mi ngi ci feebar bi lan la la dénk ah xanaa rek ni ma ñaan tante ma macha allah ñaanal ma rek ndax feebar moom yàlla mooy mooy teg nit nattu mhm. waaye daal dama ñaanal leen ma rek waaye kontaan naa ci ñëw diñu fii ma sees si ma ne ko yow man sama doom nga bu ma la sees lu may def man dama laa war a ñëw seet parce que man nday jaw ne mhm. la seet te may ñaan yàlla nag nga jug ak jàmm eh, jàmme ñii mhm. laa mujjee wax ak moom di may ñibbi na tàggu ko mu ne ma yaa kay eh, tante kontaan naa wallaay loolu lañ mujjee wax maa ngi moom macha allah tey ji boo doon def ci moom ay témoignage yan jikko wax dëgg yàlla baax na mm-hmm. bëgg na mbokk mm-hmm. bëgg na àdduna tam àdduna mooy bëgg lu baax bëgg sañse defar ba rafet mm-hmm. waa bëgg cuuraay bëgg lu neex wax dëgg yàlla démb bi ñu demee ci jumaa ja ñu fa fekk ñëpp comme ñun xam nga ñun ay mbokk la waaye xam nga dëkkuñu fi waaye moo ñu mu dëkkatee ñoo ay mbokkam ñu nga xam ñoom ñoom ñuy dëkkandoo bi ñoom ñoo ñoo ko mën a témoigner loo xam ne bi dara du ci deñ wax dëgg yàlla fu ñu taxaw fa ñu taxaw ba ñu koy jullee nee na xale bu baax la am na diine am na lislaam bu demee xëy liggéey bu wàccee mu nga këram kenn du ko gis ci dara mhm. te loolu ñu dañ cee am ko dañ cee kontaan ñaanal ko nag mhm. waaw kontaan am nañ ci moom yaakaar yàlla bu mhm. yàlla tas yaakaar allahumma amin ana tey ji lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo ko doon bëggee bëgg nañ ko ndax nekkoo nit koo xam ne tamit doon na reetaanloo nit ñi. Hmm. nan ngay wax ñi nga xam ne doon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci ci li nga xam ne moo di ah, réseau xanaa xanaa ñu muñ rek te di ko ñaanal yàlla rek ba mu ne rek mu gën a fu mu jugee. Hmm. waaw ndax bu leen seen sago tey jii ñun ñëpp mu nekk fi hmm. ndax wax day yàlla euh, xaj na fi daal waaye ne loolu la yàlla dogal ah ñu mm-hmm. muñ rek mm-hmm. te di ko ñaanal yàlla mm-hmm. waaw loolu ñaan rek koy ñaanal yàlla yàlla may ko àjjana fi daw si allahumma amiin ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ok jërëjëf kontaan nañ ci yéen merci beaucoup merci beaucoup ok comme ni leen koy defalee sa su ne rek ki nga xam ne moo di Ndeye Ndack nekkoon artiste comédien génn àdduna tey nag ñu daal di ñëw fekk si ki nga xam ne moo ni cousine am àqan euh, du fa seen def ci moom ay témoignage mam boy noo def sant yàlla julli ci ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di fay bu baax a baax. Mm-hmm. tey ñu daal lay ñëw fekk euh, bokkandoog yéen li nga xam ne moo di naqar bi muy mm-hmm. Ndeye Ndack mm-hmm. nekkoon artiste comédien boo xam ne tey jii macha allah doon na bégal askan wi. ana tey lan ngay wax ci moom rek euh, muy di ay témoignage ci nga xam moo di nga bu ñu nee doomu nijaay ak doomu bàjjan rek. loolu ça définit tout. merci. ak sama yaay bokk ndey ak baay. te ma ma dëkk ñoom tam. fii laa fii laa dëkk mhm. li ñu metti ci moom daal mooy dem gi mu dem rek mhm. dem gi mu dem rek moo nu metti ci moom mhm. waaye bu dul loolu mbokk mu baax la ni mu mel noonu ci nit ñi nii noonu la mel ci mbokk bëgg ñëpp fonk ñëpp respecté ñëpp gis nga man sama sët démb ba léegi am na audio boo xam bu ñu ko waxee sama ku fii sët ñun suñu ak sama néegu ndey yëpp ku kuy sëtam. Mm-hmm. góor mm-hmm. nijaay nijaay rek ba ba ki am deux sax nijaay la nijaay la lay wax. Mm-hmm. wóor na yàlla gën a nijaay nijaay nijaay nijaay nijaay. Mm. bëgg na mbokk. Mm. baax lañ ko xamee. ni mu mel ni mu mel ni boo ko gisee bëñam ngay jëkk a gis mu kafal la noonu la mel ci biir mbokkam. waaw lii ma la wax rek daal. wopp ji ñëw rek. ne ko kirib yóbbu ko daal moo am li ñu lu naqari ci moom mais. lan moo xariwul ci moom. ko feebaree yàgg na ko tëdd wala loo xam ne yàggul la. feebar bi yàggul yàggul yàggul yàggul. ci biir feebar bi gisante nga ak moom. ma ne la fii laa dëkk. macha allah suba gu xëyee gis ko. Mm-hmm. waaw. ci feebar bi ana yan kàddu ngeen mujjee wax wala yow lan nga ko mujjee bàyyeel. kàddu xanaa su ma man li ma mujjee man lu ma mujjee waxanteeg moom. Mm-hmm. kañ kañ weer wi bi mu feeñee. Mm-hmm. ba ma xëy suba xam nga. daal di koy ndaak mu ne ah, ma ne ko weer wi feeñ na tey. <laughs> mu daal di reen ah ma ne ko weer wi feeñ na tey baal ma àq baal naa la. mu ne ma mu ne ma baal ma àq ma ne ko baal naa la bu baax a baax a baax loolu laa mujjee waxante moom billaahi wallaahi taala ak sama koor gi. macha allah wallaahi. Mhm. Mm-hmm. sànq sa biir wax ne nga yéen ñaar yéen a dëkk est-ce que nekkoon koo xam ne tey jii dëkk bi maanaam ci ci baaxam neexoon na vraiment nekk nit koo xam ne tey jii yomb na dëkkal kooku. déggoo li ma la wax yomb a dëkkal neex a dëkkal. neex a dëkkal ndax doomu nijaay doom doomu defe naa ne moom neex a dëkk rek la moo ci moo ci mën a am. Mm-hmm. Mm-hmm. neex a dëkk rek. lañu mm-hmm. lañu tey jii mu nekkoon artiste comédien di bégal nit ñi. ñu koy gis ci télé it am na ñu bare bare bare bare xamuñu ko à 100 pour cent. yow mi nga xam ne yaa ko jige yaa dëkk ak am na tan lan tey jii ngay wax askan bi nga xam ne doon nañ ko seetaan te xamuñu réellement kan mooy Ndaat. maam daal mooy doom aama boo xam ne am na lu biir ak seetlu biti loolu ci mën a wax. am na seetlu biir di seet ak seetlu biti mhm. nii mu nii mu mel nii noonu la mel mhm. rafet xol macha rafet xol mhm. oyof noon la mel naturel naturam noonu la mel ñun liñ koy ñaanal rek yal na ko yàlla yóbbu ca àjjanay firdawsi ñun loolu lañ koy ñaanal mais du leneen njaboot bi nga xam ne bàyyi na ko fii mm. nag mm-hmm. xanaa yan kàddu nga leen di dégg xanaa rek ñaan yàlla sunu borom ba di ko di yàlla may ñu may ñu fan gudd saa ñu xëyee di ko ñaanal ndax loolu rek lañu am di ñaan yàlla na àpp sori mm-hmm. te di ko ñaanal mm-hmm. wax saa yu ñu jullee di ko ñaanal mm-hmm. saa yu ñu jullee di ko ñaanal ñun rek la ñu ci moom di tàllal yàlla sunu loxo nag mu yóbbul ñu ko ci àjjana firdawsi daw si ana lan sant yàlla rek gërëmati mbokk gërëm ndax mbo maam daan mi mbokk ñëpp la mbokk ñëpp la mbokk ñëpp la ci ndakaaru gi mbokk ñëpp la ca waalo mbokk ñëpp la ca ndar may ñaanal ñëpp nag démbit kuy mbokk ndakaaru ñëw nga mhm. kuy mbokk ndar ñëw nga kuy mbokk cees ñëw nga kuy mbokk tëngéej ñëw na mhm. maa ngi mbokk yëpp mhm. sama kàddu ci lii ngeen ma fi indi gërëm naa mbokk yëpp sant mbokk yëpp gërëm dëkkandoo yi fu mbokk nekk ñëw nga fa foog xaritam nekk ñëw nga fa ñi mu ñi mu àndal macha allah kon mbokk ci seen lii ma di lax lii sax alhamdulilah la gërëm naa mbokk yëpp niñ ko tabaxee gërëm ay doomam gërëm gërëm ay doomam gërëm ay sëram kàddu gii ma waxit ba tey maa ndax ndax maay seen mag kële toog nii moo moo moo moo topp ci maam daaga topp ci moom macha allah waaw mm-hmm. mais ñoom ñëpp ku mu bokkal biir sama kàddu gii surux na ci seen biir kàddu mm-hmm. waaw jërëjëf maam jërëjëf merci beaucoup jërëjëf bàjjen ki nga xam ne moo di maam Ndaak mm-hmm. lan nga ñuy seedal ci li nga xam ne moo di maam Ndaak wallaay maa ngi leen di fay ñu fay bu baax te ci li ma xam ci moom mm-hmm. depuis bu mu fii ci koñ bi mm-hmm. ñëw ci kër gi ci kër ba kër papaam gii ndax papaam ak Sali mi jur kii ñoo bokk ndey ak baay ñëw fekk ma ci koñ bi waaye ni ñu fi woon ba ni maam Ndaak demee laa xam ci ñoom boroom jàmm lañu boroom salaam lañu amuñu histoire ak kenn ci koñ bi koñ bii laa dëkk ci ñoom kenn mësul leen a àtte ci koñ bi kenn mësul daw dugg ci biir koñ bi ni ñoom ñi ngi xeex du maam ndaak du ay rakkam yi magam yii nag dëkkaalewu ak moom ndax aram jàll ñoom ñii dëkkaalewuñu waaye cër bi maam ndaag ak rakkam yi gàmmu lii ka jaw fara ñoom wane ci koñ bi mm-hmm. ñoom itam loolu la ñu wane mm-hmm. ndax maam ndaag feebar bi ñëw naa xuba di leen seet si fii mm-hmm. boobu xaw ma ne woon sax moom ci ci feebar bi mag ji da ko aram mii maa ngi ko fekk mu ngi toog ma nuyu ko ni ko gàmmu na def mun ma déedéet du gàmmu de ma ne ah daal di nuyu ndey ndumbe mu ne ma ko man ko ki ma gis maa ngi ko tegoon sax gàmm mu ma déedéet seen mag la aram maam daag moo feebar mu ñëw fi ci laa ñëwee fekk gàmm mi yegg mhm. xam naa ki aram mii di ko wax ma nuyoo mhm. ni ko man maa ngi naan kii sax gàmm mu ma déedéet du gàmm la ma day ndu wax ne maam daag moo feebar ana munu mu def mun ma mu ngi tane ma fekk ma nuyu ko mu fay ma fay bu yiw comme nu ma daan d'habitude nu ma daan fay macha allah mu nekk ay rakkam nekk ak Ndeye Ndume mi mhm. ci jàmm ak salaam ji ma leen xamee woon mhm. feebar la nag ku jeexal dem keroog bi muy dem mhm. magam bi moom lañ doon defal ñaanam gi ñu woon sax ni ko demal ñun ñëpp nu bokkee toog du baax ñu dem maanaam daf leen dàq maanaam daf leen dàq ndax am na ñi nga xam ne bu ñuy dem ñi ko war a taxaw duñu ko fekkee waaye alhamdulilah Mm-hmm. alhamdulilah ci li ma lay wax. macha allah ñu bëgg mbokk ñu teey ñu yaru léegi bi aram mii yore rakkam bi. Mm-hmm. xam naa gis mu jaaxle binta doomu ndey ndumbe mii. Mm-hmm. moo yebal doom ni ko demal wool ma sama maam ndey mbooj xale bi daw ñëw ne ani maam ndey mbooj man ko maa ngi lan la mun ma kaay wu urgent man ko ah ba jàmm. mun ma du jàmm man ko du jàmm kañ lan la. rek ma daal di daw sama doom ji sax moo ko laaj ni ka la mu ne ko maam daa man xaw ma lu ma egsee ci biir kër yi ma ñëw fekk aram mi jaxasoo doomu kii ma yoonoon binta ni ma tànt kaay xool nañu maam daag man ko ni maam daag mun ma mi ngi si biir ma ñëw ci biir waaye bi ma xoolee ne ko kii dem na oh. yàlla rek a tax may wax mm-hmm. ma daal di xëcc defar génn aram mii bëgg a dog ci suñu loxo mu gi noonu laa ubbee bunt bi nekk ci aram nga xam ni mbokk rek ay mbokk yal na ñu may yàlla may mbokk gu déggoo amiin déggoo am solo ci mbokk mm-hmm. te ñii ah, aram de miinu ma ko waaye ñii ma miin mm-hmm. ak seen mag gi mm-hmm. incha yàlla dana defal lu baax ndax ñu déggoo lañu ñu teey lañu ñu am jàmm lañu ñu yaru lañu sama doom daw ñëw sama borom kër daw ñëw Binta wax ak moom ñu clé mhm. ñun nañu wooyi docteur sama doom wuti dem lijjanti ji docteur ñu ñëw mu seet ni ko kii dem na mun ko wan kay xam naa ko dañuy lijjanti yëpp ñu lijjanti ma ne leen si ngeen xam seen mbokk woote leen téléphone bàyyi leen jooy te ngeen woote téléphone te ngeen dëgër mhm. ndax ñii dem nañu kii bi muy ñëw xam naa bi mu see fii daaru man ko déedéet du noonu de mhm. du noonu de kii dem dem na yéen yéen a fi des da ngeen di mm-hmm. góorlu ngeen dëgër mm-hmm. taxaw mm-hmm. mbokk yu ko war a yëg mu yëg ko moo gën waaye ay yuuxu yin yooyu amu fi waaye liñ daan mbokk rek li comme li ma la wax mu xel dem ci magam ak jàmm ju ma amoon ak magam naka gàmmu mii tey aram moom nekkatul nit man daal di daal delluwaat ci aram mi bàyyi kii ni ko yow tey yaa di ndeyu ñii doo seen mag yaa di seen ndey kon nag ñii xale yi ko waroon def sew nga defal leen waaye yow lii nga def sax du sa rôle waaye boobu rek xam naa jaxasoo na te man jaar naa si yu mel noonu mm-hmm. ma indi sama kaa mu mm-hmm. di aram mm-hmm. waaye maam ndaak mbon yóbbuwu ko de ñàkk kër sa yóbbuwu ko de bañ dëkkandoo yóbbuwu ko dafa jeexal rek dem dafa jeexal rek dem te ku jeexal rek dem ma ne aram mi góorgóorlu te nga ñaanal sa dëkk jeexal na dem na kenn mënu si dara kenn mënu si dara mhm. fi mu jógee fi mu jëm yàlla na dàq fi mu jógee yàlla na ko yàlla xaare àjjana ju gën a kawe si àjjana yi si daraja Muhammad sallallahu alayhi njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi tey jii lan nga leen di wax njaboot gi njaboot gi xanaa comme dama leen doon wax rek ñu góor góorlu rek te ni ñu jàppante woon ñu gën ko jàppante ndax kenn mësu leen xamal lenn lenn lenn di ñoom ñii fi dëkk di jaw fara ñoom di liika ñoom ñépp jàmm rek laa xam ci ñoom lii kii dafa jeexal dem ñun desandi rek la de xamuñu sax lii mu am ñun dinañ ko am wala déet taxaw bu mu am xamu ñun daañu ko am wala déet man de dama ko dama ko ñede ndax maam ndaak man mi ko sëpp ak ni ñu ko defare ak ni koj bi jógee ak ni ñu taxawoo bay bokkam yi ñëw fekk ñu fi gën a taxaw encore te man xaw ma dinaa ko am wala duma ko am dama ko ñee moo tax mbaax lu am solo la mm-hmm. yëg lu am solo la si mbokk di dëkkandoo kon nag may wax mbokk yi nañu gën a góor góorlu gën a jàppalante mm-hmm. gën a góor góorlu gën a jàppalante mm-hmm. xam ne àddinaa ngi nii rekk ku jeexal rek dem doo wacc ñu dem wacc ñu seet bopp ñu ñu fi dee seet waccuñu fi suñu bopp waaw kon nag ñu gën a góor góorlu bu baax gën a jàppalante bu baax ndax lii lu am solo la ndax kenn xamul fu lay mucc foo di demee ak nooy demee ak ñu lay taxaw mhm. xamuñu mhm. te mbaam daal lii mu am wallaay mhm. bu dellu si woon dina gën a jàppanteeg ay bokkam dina gën a jàppanteeg ay dëkkam ci ni ma gisee man de dama ko ñee jàmmee ko yàlla xaare àjjana ju gën a si àjjana doomam bi mu fi wàcc yàlla na ko sut fante sa barkeem te mu gën a topp nag ci ay bokkam xam na gis na te noonu lañ leen yare te yar googu alhamdulilah buñ ci jóg benn yoon mm-hmm. du benn dëkkandoo bu ñu amal benn xaar ma yàlla déedéet mm-hmm. maam ndaag ay nit dañuy xuloo mm-hmm. mu ñëw dina ci wax wax ju reelu joo xamante ni ba ñu doon xuloo sax dañuy ree ku baax rek a koy def ku rafet xol rek a koy def ci li ma xam ci ñoom te yàlla rek a tax bay wax koñ bii yàlla rek laa leen di bàyyal ñu baax lañu nag di góor nag di jigéen di góor nag di jigéen taxaw bi ñu taxaw mm-hmm. mbokki maam daal bu ñu ñëwoon it fa la yem waaye mënuñu ko paase mm-hmm. kon nag mbaax rek am solo. Mm-hmm. jërëjëf maam Ndoye jërëjëf. ñu daal lay fekk fi nga xam ne moo di euh, génn àdduna ki nga xam ne moo di Mame Ndakh nekkoon artiste comédien ñu xamal ni ko yow yaay euh, yaay seen mag ana tey yan témoignage ngay def ci nga xam ne mooy sa rakk maam Ndakh. xanaa baax yaru bëgg Mm. ñoom ñi seen mag ñoo jëkke bëgg bëgg gi ak baax mm-hmm. ndax ma am daag ba mu làqoo ñu ñëw nga ba kër mbay fan mm-hmm. sama doomu nijaay bee ma woo wax ma ko mm-hmm. waaye ñoom ci guddi gi la ma kii woo aram mooy mooy seen taaw mu ne ma noppale ma ne ko naa mu ne ma maam daag di jóge na fi ci li ñuy wax ci seen am kilifa rek ñun ñi seen kilifa lañu am na ñu ñu gën a mag dëgg la waaye dañ ñoo woon ne yéen la ñuy xaar pour ngeen ñëw defar si maam mhm. daal. Maraadi ne ko waa Maraadi woo sama mag bu jigéen bi ne ko pare pare bu subaa ma jël si la ñu ñëw defar maam mhm. daal. tubaar fakkaat la macha allah ñoo ko defar ba mu jekk jébbal ko borom moom. wax dëgg yàlla te gisuñu ci moom benn tilim tilim ak benn takk takk. macha allah loolu yéew ak baax gi mu nekkee woon. Mhm. maam ak bëgg nañu. bu ñu tasee xew. wala fu ñu mën a tase maam daal am na sutura am na teggin dina waxtaan ak ñu dina foog ñu dina reetaan. dëgg la suñu rakk la waaye comme ay morom. Mhm. ñii tamit suñu rakk yu baax lañu am nañu kilifa teg nañ place macha allah macha allah. Mhm. yal na leen yàlla lafal cat yàlla may leen mhm. mu muñ. maam daak moom amuñu dara luñ ko mën a waxal di ko ñaanal yàlla rek yàlla na xippee àjjanay si benn doomam bii mu fi bàyyi yàlla teg ci ndeyjooram mu dund dund dund ba ay tantaam yi di ko defaral. lu kaw si lu kaw loolu rek lañ koy ñaanal. Mm-hmm. macha allah ma daal moom amuñu luñ ko waxal. macha allah dëgg yàlla amuñu. Mm-hmm. ñu daal di tourné waat ci magam bi nga xam ne rek euh, moom moo. moom moo ko yoroon bi mu feebaree. bi mu feebaree moom moo ko yoroon dañuy bàyyi rek nga daal di sànni ay kàddu ndax bi nga nekkoon ak moom nekk na koo xam ne tey jii ndax feebar bi nga nekkee ak moom nan nga doon dundee ak moom ki nga xam moo di Ndeye Ndane maam daal. kiiwul benn yoon daal saalitul benn yoon. ndeysaan li muy feebar yëpp saalitul damay ñëw sax mooy nëbbu boppam di kaf man am na guddi goo xam ne ma fee nekk guddi sax mu naan ma sa borom kër dinaa ko dolli xaalis ndax maa ngi la fi tey ba léegi wanewul benn benn benn benn wanewul benn métit sax ci kii am heure bu ñëwee mi ngi kaf pour bañ ma eh, stressé wala dara ni mu kii daal noonu la def ba. nii mu ki kii woon barki dem ba nekkee ak moom fi ci ci ci bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ci ci ay rumeur ñu ngi déglu ko ne feebar bi daf ci daf ci jommi woon parce que dafa demoon tournage ànd ak xale bu góor boo xam ne euh, dañoo rutti garab bi après garab bi wax en général que lan ngeen may wutee loolu moo jàppoon loxo tante bi wax rek dañ ko dégg ci rumeur yi lañ ko dégg ci dëj bi démb ñun kii wuñu lool démb rek lañ ko dégg ci kii bi ci waa ci mhm. waaw moom sax waxul dara moom bi mu ñëwee waxul dara mhm. waxul dara wax dëgg yàlla mhm. yàlla ko kii rek démb rek lañ dégg rumeur yooyu dañu koy wax macha allah waaw waaw yow mu nga xam ne yaa nekkoon ak moom hôpital ana yan kàddu ngeen mujjee weccoo yéen ñaar yan kàddu la la bàyyi jour bi mu gaañu daa ñëw rek woo ko ci wuyuwul bi ma ko waxee may ma am ndox mi nga naan daa wëlbati ko rek xool ma tourné nii daa di ree suñu uh, cousine bii ngeen doon doxal mm-hmm. mu dugg rek woo ko be mu wuyu ko benn yoon mm. daal di tere après ñu dem sama saraxum ak bi mais moom après kiwul dara loolu kese du koy mu gestu ma nii reetaan la tourné waat kii bi ba ay 5 heures ma julli 5 heures ba kii rek ñëw ci moom maa egg si bi nii rek mu gaañu. Mhm. njaboot nga xam ne bàyyi na fi tey lan nga leen di wax. njaboot nga xam ne bàyyi na leen fi. tey yan kàddu nga leen di dénk. a ah, ah, yàlla kese moo mën nii. man mm. li mm. wax dëgg yàlla li ñëpp wax. ku mu gis ne kii maa ko mag day kii ak man wala kii sama doom yu bàjj. def ma comme morom li ñëpp wax rek billaay fu muy yend noonu bu yendoo sama kër rakk bi lu ne lay lu ne daal li ñëpp wax la lañ ko xamee mm-hmm. ki nga xam ne moo topp ci moom mm-hmm. nañ ko bàyyi nuyu bu baax a baax a baax dañuy faral di wax naan dëkkandoo mbooy mbokk ndax balaa boo yuuxoo balaa kenn ñëw sa dëkkandoo mooy euh, njëkk a ñëw kon tey jii lan nga ñuy wax ci nga xam ne moo di maam Ndake asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur sa sant. Mm-hmm. di jox ñëpp seen wàccuwaay. tàmmaam daal moom suñu dee wax ci moom gëm naa ne duñ duñ duñ ñu dem daal. Mm-hmm. parce que nit ku baax la. nit ku yaatu la. nit ku am yërmande la. nit ku mm-hmm. am sutura la. macha allah. man dëkkandoo laa mbokk laa. parce que seen bàjjen bu bokk ak seen baay ndey ak baay ñu nekk góor ak jigéen seen bàjjen boobu lañ ma tuddee man. te dëkkandoo bu yàgg tax ñu tuddee ma seen bàjjen boobu. macha allah may ñëw nag nekk fi mu def ma doom def ma xarit. Mhm. damay ñëw toog su yeqee añam bi sax woo ma sali kaañ añ bàjjen ñëwal ma ñëw toog añ ba suur mun na ne kii xale la duma ko attaayaal. waa day xëcc baraadaam bi teg ko di ñu attaayaal ñuy naan di kaf di ree su jógee feccal ñu fii waxtaan bi fii macha allah moom daal fi ne nii kenn munta wax si moom dara lu dul baax na baax na gudd ba gudd nag koñ bi kaw ba suuf mhm. macha allah amu fekk kenn xaar ma yàlla mhm. kafree la sëkk koñ bi yëpp kum ci romb su waxtaanee ak yow dina la bàyyi loo xamante ne ni mu ci mën a jëriñoo ëllëg macha allah macha allah ñun daal liñ koy ñaanal mooy yal na ko yàlla xare àjjana. Mm-hmm. yal na dee di doon noflaayam. lépp lu mu tëdd fii rek sonn ko. Mm-hmm. yal na nekk bànneex fa mu ne. njabootam benn bi mu fi bàyyi muy bakka. Mm-hmm. yal na sut turandoom fan. yal na sut ndeyam ji fan. yal na ko yàlla teg loxo. yal nañu ko yàlla sàmmal te sàmmale tàmmaam daal daal ñun daal mënuñoo wax ci moom. Mhm. ndax fii koñ bi ko mën a teg fii di ko laaj rek benn baat bee la lay wax. Mhm. mooy baax na. Mhm. am na sutura am na yërmande maanu na. amul daray seytaane. magum jëmm la wante amul daray seytaane. jëwut demut dikkut su demut ar ko soo ñëwee si bu néegam bi nga koy fekk mu toog ba koroog ba mu waree ay tuuram le bis biñ doon defaree armeer yi mu ubbi fenêtre bi ma ne ko fenêtre bi de dina ne tey man ban dëkk laa ne ndax doo ko tijji da ngay tëju si biir rek taal sa télé teg sa attaaya jàkkaarloog sa tele rek yow de man xaw ma ban façon nit nga mi ne bi laay goro te man moom tey daal damaa bëgg a féex rek macha allah goro goro goro goro dama koy naan jigéen ñi ñooy wujje wante yow góor ñooy ne di wujje ci yow ndax xale bu ko romb mi ne la chéri booy sa yaay si rombee mi ne koo goro ana sama chéri macha allah kafre daal la nekkee daal si dëkk bi daal lépp lu mu doon bégalee nit ñi yàlla na ko ko yàlla sottil xiiwal gu jeex fee mu tëdd yàlla na ko malaaka yërmande teeru yàlla na ko sëñ Fallou sama sëriñ ba teeru jox ko sëñ Babacar si sëriñam ba mu bëggoon ci xolam macha allah ñun daa fi ne nii gërëm nag dëkk mbokk yi macha allah ta daa ba ne kën nag si néegam bi avant kenn di ñëw mbokk yee ñëkk a ñëw mbokk yee ñëkk ñëw defal ko suturaal ko avant ñu koy yóbbu ndax balaa ngay jox nit sa néew da ngay suturaa sa néew ba pare soog kaa joxe wante macha allah tan day mbooj ak ñoom wali mataak tan wali ma tamit nga xamante ni mooy bàjjenu gox bi fii ak macha allah maçon spécial ñoom ñooñu mm-hmm. ndax maasal dañoo ne dëkkandoo mooy mbokk wante tàmmam nag ba mu wàññee ko si biir néegam bi xam nañ ne dëkkandoo mooy mbokk dëgg la macha allah yéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant mm-hmm. ah di leen ñaana gudd fana a wér gi yaram yàlla teg loxo seen liggéey bii ngeen di liggéey invité waan damay seetaan ba ba set jot su ma ñëwee fëgg bunt bi na ko yow dama laa fanaanee seetaan mm-hmm. ay yow tam man daal yox mi ne ma gis nga ma ni ma def baax na ma ne ko macha allah laf cat mm-hmm. wante yal na leen yàlla fay mm-hmm. yal na leen yàlla fay yàlla na leen sëñ Fallou teg loxo. allahumma si dërëjëy weeru koor bi ñu nekk. amiin amiin amiin jërëjëf yow ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup.